العزبلة وبعد البسملة وبعد الهمدلة وبعد الهوقلة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه خير خديمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين li ma bëggoon wax njaboot gi rek moo di que fi ñu toll nii silence total laa bëgg waaw ndax jamono bu nekk ak li mu laaj yi nga xam ne moo xew ci xale yi bëgguma kenn ku ci xalaat ni njiitu réew mi dara la ci ba ministre de l'intérieur bu bees bi dara la ci déedéet état dafa yore ay pouvoir am pouvoir exécutif législatif judiciaire ku nekk di def sa liggéey man wax loo ma kenn dara gis ngeen conférence de presse bi ma naroon a def dama koy bàyyi ba jëmmi jamono waaw 31 décembre bi maa ngi leen jarul ngeen koy waajal ndax xel dafa baax yéen xam ngeen ni jamono yi ñu nekk tam ñëpp xam nañ ni jamono yi nekk ci confinement yi yëpp comportement yi nga xam ne yu bokkul yi nga xamante ni bi xew na ci sunu biir waaw nga xam ne bu fekkente ni état bi nee na nangam nañ doxalee nangam citoyen yi ngeen gis ñun ci sunu wet ni mu ciy demee waaw nga xam ne bu dëgg bu fekkee dëgg rek la ñuy wax maanaam ñun ñoo ko ci respecté wul ci li ñuy wax ñoom ñi ci des ñëpp dañ ko respecté te loolu yëpp ñu koy baal maanaam dëgg bu ñëwee da ngeen koy ñeme waaw ñii seen liggéey la ñuy def judiciairement nañ def seenu liggéey man wax loo ma kenn dara waaw chef d'état bi itam du ci dara ñee ci seen liggéey la nekk ma lool daal laa leen di wax xale yëpp laa koy wax képp koo ci xamante ne bii nag nekk nga di law law yi wax leneen yoom ku ci ñemewul kaso waaw gis ngeen man mii maanaam damaa bëgg a dugg ci kaso bi waaye ku tedd ki nanguwul waaw ki ma jaar du ngeen fi jaar quatre-vingt-quinze fii laa nekk lu ne ma fu ne ma lu ne ma a dugg ci kaso bi ba fii may wax ak yéen ñiy dugg kaso yëpp man la ñuy duggal boo xam dañoo tooñ moo xam tooñuñu loolu leer na nañ buñ toll ne waxloo ma kenn waaw waaw man maa wax leen ñoom maa leen wax ni ku tooñ ku tooñ nañ ko yar <laughs> xanaa tey ñi ma yërëm mooy ñi doon joxe seen i doom rek waaye seen doom yi nag ñoom état man nañ leen yar ak daara yi loolu la waaw waxloo ma kenn dara daal képp na ku ci ñemee kaso kaso baa ngi nii waaw moom ku ci wax lu jar ñu jàpp la bu ñu la jàppee ñun ñëpp war a dugg kaso amul tooñ amul baña a tooñ murit bu ci goree ku tedd ki wax nanu ni li mënu jëleel ci tubaab yi bu ci kenn génn kaso salaam